salaam mbokki safin fi 7 TV maa ngi bëggee ñëpp di seen fonction tracteur mu gën a fas yéene journée tey bu tombé le jeudi mai Real Madrid tàmbali na négociation ak club bi di Borussia Dortmund pour joueur bi di Jude Bellingham kon na démb Real yónni benn délégation foofu sa Dortmund ngir nag ñu motal nu gën a gaawee transfert Jude Bellingham foofu sa Real Madrid kon na transfert yi ñu koy xamee si diggante 100 millions d'euros ak ay bonus waa Real Madrid signé na contrat bi nga xam ne war na ko prolongé ak Real Madrid ba deux mille vingt officialisation bi rek moo des dina fayee ko salaire bu toll si douze millions d'euros ak contrat bu bees boobu. Real Madrid def nañu offre pour kii di Marco Asensio ngir nag mu prolongé contrat am Dani Ceballos moom moo si côté am mu ngi gën di euh, sori club bi di Real Atlético Madrid ñu ngi koy bàyyi xel te bëgg nañu koo signé. Alphonso Davies bokk na si euh,

Barcelone def nañu offre bu njëkk pour Lionel Messi proposé nañ contrat ba 2025 ak salaire bu toll si 25 millions d'euros kon nag ki di euh, ñii di waa di Jordi Cruyff nekkoon na directeur sportif FC Barcelone mi nga xam ne nag su bi jeexee daf fay euh, jógee keneen ku waroon a jógee FC Barcelone nag nar des foofu muy euh, kii di euh, Matteo Almani nekkoon na seen euh, directeur du football kon nag kii di Matteo Almani wi nga ne nag mu nekkoon directeur dellu na ginnaaw si lu mu ne dafa bëgg a continuer ak FC Barcelone kon nag kii di Almani amoon na accord de principe maanaam daal waxtaanoon ba déggoo ak club bi di Aston Villa nekk foofu sa Angleterre bi waroon na dem si ñëw dellu na ginnaaw si loolu yëpp ne nag dafa bëgg a continuer liggéey bi ak kon nag kii di Jordi Kloof nekk directeur sportif bi nga xam ne bi nga ngi waaj a waa Barcelone ñu ngi koy waaj a remplacé kon na mooy doon directeur sportif bu Barça bu bees bi fii ak fan yi di ñëw Matteo Almani continué liggéey bu doon def si directeur du football bi Alejandro Balde mi ngi say tànk prolongé contrat ak FC Barcelone ba 2027 clause dina jàll si 1 milliard kii di Santiago Mourinho nekk défenseur Angleterre la jàll waa Qatar def nañ seen offre mu mujj pour jënd club bi di Manchester United bi nga xam ne famille Glazer bi moom club bi dañ ko teg si marché pour jaay ko offre ba ngi toll si 5 milliards d'euros kon nag dañoo bëgg a jënd club bi kon offre boobu noonu nag dina tax waa Manchester United fay bor yi nga xam ne nag amee woon nañ ko foofu sa Angleterre la des ñett club yi di euh, Newcastle Chelsea ak Manchester United ñoo intéressé aussi ya euh, doomu Sénégal bi di euh, Sadio Mané gannaaw a wane seen bëgg-bëgg si di si Newcastle ak Manchester United United ba léegi nag ñu ngi wane seen bëgg-bëgg si milieu terrain bi nga xam ne nag contrat am léegi jeex kon nag contrat am su jeexee bëgg ñoom librement Manchester City ñu ngi bàyyi xel kii di Xavi Simons nekk si club bi di PSV Eindhoven beneen jour Manchester City bëgg a recruter muy kii di Josko Vardiol nekk si club bi di Leipzig waa Leipzig ñu ngi siy laaj cent millions d'euros Arsenal ñi ngi bàyyi xel kii di uh, Moïse Caicedo nekk si uh, club bi di Brighton kon bëgg nañ ko signé si mercato bi di ñëw beneen joueur bu Arsenal bëgg a signé muy uh, Mason Mount bu Chelsea te pare nañ pour def offre bu toll si 60 millions d'euros ngir nag ba léegi foofu la ñuy des Angleterre waa Liverpool ñi nga xam seen joueur yi di Roberto Firmino James Milner Alex Chamberlain ak kii di Naby Keita dinañu jógee si club bi su saison bi bi jeexee Bayern Leverkusen bëgg nañoo signé kii di euh, Granit Xhaka te fu mu toll nii nag foofu gën a jege. Sergio Ramos mi ngi si ay tànk am ak euh, Paris Saint-Germain benn atu contrat la war a dolli Bernardo Silva jamono ñu toll nii nag ngi gën di jege Paris Saint-Germain kon nag moom pare na pour signé ak Paris Saint-Germain te Paris Saint-Germain bëgg nañ ko ngir nag remplacer Lionel Messi su fa jógee. Ligue des champions saison léegi xam nañu barki démb Inter de Milan moo finalu si kanamu Milan si door ko benn bal dara ñuy fàttali match aller Inter de Milan moo fekk ji Milan door ko ñaari bal dara si beneen demi-finale bi Manchester City moo dalal euh, la ak Inter euh, Juventus de Turin match aller dañoo nuyoon euh, si beneen demi-finale Bayer Leverkusen mooy dalal AS Rome ñuy fàttali AS Rome moo ko daloon si match aller door ko benn bal si dara foofu la ñu xibaar yi di leen jox dig daje beneen si ne xibaar leen leen nga amee t'activer cloche notification pour jot information yi.